bu ko defee rek oustaz Hady ginnaaw waxtaan yu am solo yu weesu yi nga xam ne leeral nga ko mbokk yi moo xam la ci aju ci wàllu atteb aj ndax farata la euh, walla lan nga wax ne farata la euh, ndax njariñal aj itam mu bari lool nga waxoon ko ponki aj itam nga waxoon ko ñu ñëw rek tey oustaz Hady bëgg nga indil mbokk yi ab leeral ci xeetu aj yi ndax euh, problème bu bari loo looy gis ujaaj yi di jànkoonteeg moom la ne dafa dégg ne aj ay façon la ban aj moo gën léeg-léeg ñu laaj la ban moo gën wala ban laay jël wala ban nga may conseiller euh, ñu aajowoo nag balaa ñuy jógee fii ci Ndakaaru ñu xam exactement ñaata xeetu aji am ak euh, ndax dafa am bu gën ak bu ñu gën alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabi rahma wa kaashifil ghumma wa shafiil umma sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al aima wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi al qiyama al ustaas xasan maa ngi lay nuyu di jaaree ci yow di nuyu mbokk jullit yëpp fu ñu mun di nekk ci juróomi continent yi ci àdduna bi nuyoo leen nuyoo bi gën a tedd muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. pour yegg si ci tomb bi al oustaz Xasan démb rek ci waxtu yu maa ngi la doon wax xarmal waxtu wiñ koy def ci ñetti weer yi ci wor yi diggi tabaski foofu mooy miiqaam jamono waxoon naa la tamit ci fiñ koy defee. rawatina ñun ñi di ay sénégalais di ñëwee madinatul mu munawwara ca buntam booba suñu armaluwaay mooy abaarul àll yi ñi koy tuddee dul xulayfa ñeneen nga ca des nag kenn ku ci nekk bunt boo duggee rek foofa mooy sa armaluwaay moo xam najdu la moo xam saatu irqin moo xam yalam-lam ak yeneen ya ca tegu ci armalu yooyu waaye lu ca mën a am suñ miiqa bi di dul xulayfa moo gën a sori màkka ci mbooleem miiqaat yi waxoon naa la ko mu mel ni nag aj boo koy seet al oustaz xasan pour bala maa yegsi ci ponk yi dafa mel ni ab néew boo xam ne yaa defal sa bopp lépp au lieu que ñi nga bàyyi gannaaw defal la wàccaayu néew xam nga néew boo gis bu génnee àdduna ñaareel dana aajowoo ñu ko sang dana aajowoo ñu ko solal yére dana aajowoo timit ñu ko seede dana aajowoo ñu ko jullee dana aajowoo ñu ko denc dana aajowoo sax ñu ko dëjal lii lépp nag xaaj bi moo ko defal boppam mm-hmm. moom moo sang boppam ci miixa boobu ma wax la muy armal ba muy xarmal ba tax ni ñuy sangoo armal di ko sangoo jumaa di ko sangoo ba mook ni ñuy sangoo niiw rek ñoo yem kepp atte rek ñooy wuutee yéene waaye ak yéene bi moo atte bu ne yéene bi moo la cay yóbbu waaye nag defin bi moom benn rekk la moo tax kon jamono ji nga xam ne yaa ngay sangu-sangum armal yow xaaj bi war nga cee fàttaliku ne man de bu ma génnee àdduna bañ may sang hmm. tey de néew bu sang sama bopp bi nga sangoo ba parti bi al Oustaz Xasan yow moomu yaa sang sa bopp ndax bu ñu la sangee dañuy wut ay yére yu weex ñaareel moom lañ tàmmu muuree la ko hmm. moo tax gis nga yére yooyu nga doon ajee boo génnee àdduna sax mën nañ la ko muuree suulee suulaaleel la ko nit ki mën naa dem ba aji sax jël ne su ma génnee àdduna dénkaane naa sama armal yi nañ ma ko sange moo tax kon ba ngay jënd armal jaalal bi ko sangu ba pare na nga ci fàttaliku ne ni may lëkkaayoo sama ñaari morso yi bii ma woddoo ko bii ma teraxlaayoo ko man de maa ngi sàng sama bopp fekk maa ngi dund loolu boo koy bàyyi xel rek image boobu nekk ki sa kanam sa aj gi danga ko gën a rafetal da ko gën a sellal ci bañ a dugal ci ñett yàlla waxoon ñi génnee ko ca du ko ci dugal fa man farada fihin al ya fala rafafa wala fusuqa wala jidaala fi l xajj waaye tamit gannaaw bi nga sàngee sa bopp ba pare yaa jullee sa bopp ñaareel xam nga nit ki buñ ko sangee ba pare sàng ko dañ koy jullee waaye yow ne dama ne bàyyil ma jullee sama bopp ci ñaari rakkaat ak moom laay def mu remplacer ñeenti kabaar ya gis nga ñaari saar yi nga xam ne ñooy saar yi gën a tegtale wéetaay ak yàlla ci alquran moom nga jàng muy suratul na ak suratul ixlaas ba nga sëlmalee rek nag nga wax ne yaa ah, man nag maa ngi dellu ki sama borom wala moo tax euh, mu ngi mel ni yaa ngi yaa ngi dellu sa borom moo tax yaa ngi dëgmal néegam bu tedd bu màgg booba di kaabatal musharrafa ba nga fa bàyyee ko def yooyu yëpp nag yaa ngi dëggalee sa bopp ci arafa bis boobu mooy sa bisab dëj bi gis nga arafa bu ñu ca yeggee kenn lépp dañ koy maye daj dëj kenn du fa dem ñi ñu ñam yëpp la ñu joxe ak fruit yaak ndox maak yëpp te gis nga dëj dafay takkook jàng alquran ak ñaan ak toroxlu moo tax mbooloo ma bëri lool moo tax foofa <laughs> foofa ngay nekk mais xasan nag yaa ngay suulee sa bopp ca minan gis nga fan yooyu ñu def minan mat la yooyu nga xam ne day tolloog sa tëdduwaay nga xam ne boo xalangoo rek daanu benn côté rek ngay mën a tëddee côté boobu ngay tëddee ndeysaan dafay niroog sa bàmmeel bi nga tolloog li lay gasal nga xam ne du wuuteeg sa jëmm ji dañuy tolloog kepp nga xam ne boo poussé tuuti rek yaa ngi ci yëfu yaa ngi ci mu ngoog mm. ñoo yem kepp <laughs> moo tax gis nga tamit ñetti ñetti fan yi ñetti fan yi bàmmeel ya mooy ñetti fan yi minaan ya rek ñooy mooy yooyu nga fay am moo tax yëg image yi bu fekkee yaa ngi koy bàyyi xel ci sa kanam ci aj gi dana tax nga gën a bàyyi xel aj gi lool ci ixlaas bi dana tax tamit nga gën koo bàyyi xel lool ci rafetal ko moo xam ku mu ci ñetti aj yi ma bëgg a nga war cee dugg. te sax oustaz aji doguma la waaye kii jaar foofu ba pare. warul dellu nag yenn jikko yi di des ci moom. waaw war na nekk koo xam ne dootul yéeneeti nit lu lu lu mu boppam. warul nekk koo xam ne du jubóog boromam ci defal ak bàyyil. warul nekk koo xam ne itam day sàggane li nga xam ne yàlla euh, waral na ko ci kawam. waaw xasan dafa war a jàppee ñëw daal. dafa war a bu demee ba ñibbisi dafa war a jàppee boppam niiw bu dekki te yow yowmal xiyaam jotagul <laughs> su boobaa nag góorgóorlu <laughs> waaw su boobaa nag da ngay wax ne li ma rëccoon yëpp dama ko war a profitoo dabaatal ko hmm, li passé woon lépp te muy lu ñaaw yàlla dimbal na ma tuubee naa ko ca place bi gën a tedd ci fi ñu war a tuubee hmm. dootuma ca delloo ti mukk li ci sama dund gi hmm. loolu boo ko jàppee sa bopp rek dafay nekk lu oyof nag loolu tamit boo ko jàppee sa bopp boo duggee ci kenn ci ñetti xeetu aj yi rek dafay oyof ñetti xeeti aj yi bi ci njëkk mooy ifraat moom nag la imaamu Malik mazhabam bi ñoom dañoo tànn ne moo gën ñoom dañu jàpp ne ifraat moom la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam defoon ci ajam ga di xajatul wadaa ga nga xam ne moom la defoon euh, moom tamit imaamu Malik dafa ne ah, maanaam xaju ifraat moo gën ndax mooy koo xam ne dafa mat rek te amul dara luñ ko jangee mun a ñeneen ñaar ya ca des yëpp pour aj nga mën a mat foog ñu jangee ko dara benn nga jangee ko reen di gàtt ci diggante gëléem ak mbaa nag mbaa xar mbaa bëy bu yooyu yëpp ñàkkee nga jangee ko xoor fukki fan ñetti fan ya ca ba ngay nekk màkka juróom-ñaari fan ya ba mu ñibbee muy tilka asharatun la waaye nag ifraar rek ngay fekk nga mën koo xaj te moom doo doo def dara mu ne tamit moo gën ndax moom moo moom rek a tudd aj aj rek la umra jiituwut ko umra topput ko moom kenn rek la ngaa aj rek loolu tax moo tax kon loolu mooy ifraat mooy wéetal gi ñun senegal nag ñoo miin moom ne euh, man de damay boole aj ak umra ndax maanaam aj naa ba pare mais damaa bëgg a dem euh, umra jihaad baax na ba tey mm-hmm. waaye waaye bokkatul ca liggéey ba ba nga ba ifraat ba jeexee rek ci la aj ga jeex yow laneen la umra googa laneen la mu mel nga sëlmal farate ba pare naafil damaa bëgg a naafil waat kese mm. kon loolu la kon moom la imaamu Malik jàpp ne moo gën ci xeeti aj yi moom la jàpp ne moom la sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defoon Euh, moom nag mooy boo koy armal gannaaw bi nga jullee sa ñaari rakkaa yi da ngay wax ne yéene naa aj rek maanaam man xaramtu bil xaj xarmal naa ci aj kese aj rek ngay tudd doo ci doo ci doo ci dool dara hmm. nawaytul xajja baatu ifraat bi loolu lay moom loolu lay tekki mooy man yéene naa aj rek su boobaa nag boo ko ajee comme donte Sénégal nga bàyyi ko doo doo rey dara doo den dara kon kooku même bu gënul moo gën ci ki poosam vide ndax bu sa poos bi viddul la am ci réal ngi delloo la ko bëriwul te bëgg ngaa jënd sérité boo bëggee jënd xar dangay ngay jeexal. nga def ko ay course kon nga waaw mu nga kon su boobaa la nga naroon a jëndee xar soo yeboo nga def ko ay course ak ay kaala <laughs> kon yow même bu gënut moo gën ci yow yow mi nga xam ne sa poos bi vidd na kon loolu mooy mooy ifraat bu ñaareel bi xasan mooy tamatoo tamato moom dañ mooy mooy tekki ci baat bi ci olof noflaayu ndax mbooleem ñetti xeeti aj yi moo ci gën a yomb ndax mooy li gën a néew looy taqoog saxarmal gi ndax moo tax moom boo koy boo koy boo koy yéene da ngay wax ne euh, maanaam ahramtu bil bil umrati man xarmal naa ci umra umra rek ngay tudd bu fa tudd xaj de tuddal umra kese moom nga xarmal su ko defee moom nag gannaaw bi nga jullee si ñaar rakkaa ba pare wala ci gannaaw ak farata ci ngay tàbbali yéene umra moom kenn kese yow nag wax nga umra bi yéene nga ko yaa ngay labay kaw ca kaar ya ñëw nga ci kaaba gi bàyyi nga ko wër nga kaaba gi juróom-ñaari yoon def nga ñaari rakkaa ci maqaamu ibrahim dem nga timit dox safa ak marwa euh, demal ñi wàññi sa kawar bul watu nel ndax da nga cee war a tofal aj ndax bu aj gii ñëw fekk nga dese dara ci kawar kon foofu li ñu gën mooy nga duufu li ñu tuddee siir nga dem ñu wàññi sa kawar tuuti ci gaa yooyu nga xam ne ñu ngi yore seen siso yi taxaw ca marwa boo ñëwee rek ñu la dañ lay dañ lay wat foofu wàññi la yow sa umra jeex na yow ci même bis bi nga armal mën ngaa dem nga yeweeku summi sa armal ya sol sa yére Sénégal yi commencé tuura parfum yi ak yeneen kenn tereetul la dara ci lu aajowoo ci wàllu ci wàllu ci wàllu xarmal xam nga kooku moo gën a yomb kooku même su fekkee gënut moo gën ci koo xam ne dafay liggéey dafay liggéey xam nga tey yaa ngi nii di aji boo nekk journaliste di aajoo di monta di di di caméra di aajoo di monte wala yow yaa ngi nii di aj danga am ñoo xam ne danga leen a dimbale da missionnaire nga mm. danga leen war a dimbale ci seen liggéey même bu tamatoo gënul te am na ñu wax ne moom moo gën ndax ñu mel ne ñoom sayyidatuna Aïcha moom lañ defoon yonentu bi tamit digaloon na ko ay sahabaam ñi def ko kon kooku sunatul euh, goo xam ne taqririyee la def nañ ko yonentu bi saxal leen ci digal leen ko tamit ñi def ko woo mën nga ko jël dugal ko tamit sunatul qawliya bee boo ko defoon muy sunatul fi'liya bii mën ko def muy sunatul qawliya ndax yonent moo leen def leen yéen tamatoo te dañu wax ne sunatul fi'liya moo ëpp doole bu ñaareel bi nag door caa tegu muy sunatul qawliya léegi nag ñu ne tamatoo kon ñu jàpp ne moo gën dama ne même bu gënut yow mi nekk missionnaire nga def tamattu moo gën ci yow Oustaz Assane hmm. moom tamit mooy gën ci yow sax yow mi nga xamee da ngaa ñëw aj si mais dafa am yeneen looy doxaale hmm. ab commerçant nga ba nga jënd ay bagage ba nga dugg ci ay faslante ay relation bën nga dem bëgg nga dem ci yeneen dëkk yi fu mel ni Taïf bëgg nga dem ci yeneen ak yeneen yu mel noonu su boobaa yenn déplacement yooyu nga def tamatoo moom moo gën a oyof ci yow ak donte la cay dàq yëpp ci yenn borom xam-xam yooyu yañ cay saxal yëpp mu ngi ci léegi euh, bu bu boobu moom da nga ne dama dama armal rek al oustaz Hassan ci umra kese bi nga umra sa umra gi mi ngi jeexee ci gannaaw bi nga wëree Kaaba gi julli ñaar rakkaa ci maqaamu Ibrahim dox Safa ak Marwa ñi wat say kawar sa xumra jeex na demal nga sangu sol sa yére Sénégal yi boo xaaree bañ la tay la bisab juróom-ñetteel bi ñu koy tuddee yow mu tarwiya bis boobu nag ci ngay armalaat mais man nga armalee ci sa hôtel rek jarul génn dëkk ba foofa nga nekk rek mën nga faa armal dugg sangu summi sa yére Sénégal yi jëlaat sa armal gi nga armaloo woon ci sa xumra googu sax mën nga ko jëlaat bii nga woddoo ko bi nga làmbaayoo ko commencé waat wax la bayka wu ànd ak xujaaj ya ngeen jëm minan soo fa demee minan fanaan bu bër setee nga dem arafa di juróom-ñeenteel bi bër set di fukkeel bi di musdalifa bu bër set kon nga gannaaw bi nga bàyyi koo musdalifa bër set euh, di yowmul naxri ci ngay euh, sànni sa jamratul aqaba ànd ak xujaaj ya nga dem makkatal mukarama defi sa tawaaful ifaada su boobaa nag comme yow yaa defoon tamattu da nga dem nga doxi xat sa nga doxi safa ak marwa sa doxi sa ak marwa bële umra la woon sa doxi safa ak marwa bu ñaareel bii mooy aj gi moo tax yow nag yaa gënoon a neex la fële mais fii nii gën a kaw a tuuti nag ndax gaa yi def ifraat kenn du doxaat safa ak marwa demoon defoon nañ ko pare ñi def xiraan tamit maa ngi ciy ñëw duñ doxaat safa ak marwa mais yow foog nga def euh, dox safa ak marwa bu pare nag nga door a dem ñu wàññi sa nga kawar wala nga watu hmm. door dem sa hôtel sangu sol sa yére Sénégal yi dem fanaani mi nan la ca des nag yaa gaa yi yéen a ko bokkale hmm. mu des nag benn aj gi ci tegu mooy xiraan hmm. xiraan moom benn xeer ci nga rey ñaari pitax sa benn lëkkaay gi da nga cee umra aj ci waaye moom nag boo koy def da ngay wax ne yow yàlla wuy si naa la ci umra ak ci aj umra ngay njëkk a wax door caa tofal aj ci yéene ji waaw mu ngoog euh, foofa nag nga koy yéene ne ba yéene naa def umra ak aj léegi nag yaa yéen ñëpp ay bokk lu ngeen def boo seetee ñett ñi al oustaz Xasan li leen di séparé benn place rek lañ amee sep lañ leen mën a séparé mooy dox safa ak marwa bi waaye ñoom ñëpp ñoo bokk nuñ xarmalee ñoo ko niroole ñoom ñëpp ñoo bokk def tawaaful xudóom bi ñoom ñëpp ñoo bokk def ñaar rakka ci euh, maanaam maqaamu Ibrahim boo ko seetee ñoom ñëpp tamit ñoo bokk dem Minan ca bisab juróom-ñetteel ba ñoom ñëpp ñoo bokk taxaw Arafa ñoom ñëpp ñoo bokk bàyyeekoo fa ñëw Musdalifa ñoom ñëpp ñoo bokk julli fa timis ak gexe ñoom ñëpp ñoo bokk for xeer ya sànni jamratul xaq ba ñoom ñëpp ñoo bokk def tamit tawaaful ifaada bi ci bisab tabaski ba fu ñu fu ñu amee séparation ñoom mooy ca sa'yu bayna safa wal marwa ci bisab tabaski bi moom mi def tamattu moom kenn rek a koy def waaye ki def xiraan ak ki def ifraat ñoom duñ bokk ca ñaar ya foofa kon lu ci des yëpp ñoo ko niroole waaye amul fenn foo xam ne mën nga leen a wutale ci lenn am xataa ñi ñuy armale te mënoo ñëw ci si niñ armale nga ne kii noo tamattu la def di gisoo armalem gi ni mel gisoon ni mu armale wala nga ne kii de xiraan la def gisoon armalam gi ni mel wala kii ifraat la def ñoom ñëpp ñoo bokk tamit nu ñuy armale ci melokaan wa mm. bokk melokaan wu ñu waree kaaba geek yeneen jaamu yàlla yi ci des yëpp fenn rek moo am farqu ci seen diggante mooy dox safa ak marwa ci bisab tabaski bi kooku ñu def tamatoo rek ñoo koy def kon lii xasan mm. euh, dëgg-dëgg euh, benn lañ euh, boroom xam-xam yi nag dañoo jàpp ne nekk fi ne ifraata gën njuumte la nekk fi ne tamatoo gën njuumte la nekk fi ne xiraan a gën njuumte la ñoom ñëpp a gën kenn ku ci nekk daal ba gën ci yow rek mooy bi gën hmm. kese noonu noonu lañ gisee ndax boo demee cay euh, mazhab Abu Hanifa imaam Ahmad ñoom dañ ne xiraa na gën ndax moom la yonent bi defoon sallallahu alayhi wa sallam imaamu Maalik ne ifraat a gën moom la yonent bi defoon ñee na ngeen ne tamatoo moo gën ndax moom la digaloon euh, soxna ya ak yenn ki saxaaba yi ñu def ko kon yëpp yëpp a yëpp a gën benn bu nekk daal ba gën ci yow rek boobu mooy boobu mooy bi gën al oustaz Xasan jërëjëf oustaz Adi muy euh, leeral yu am solo xeetu aji yi ngañ doon waxtaanal euh, muy ñetti xeetu aj moo am mm-hmm. waaye sénégalais bi nag li gën ci moom mooy balaa muy dem mu xam ban la tànn fii ci Sénégal mu tànn ko te kenn bañ ko caa génne nga xam ne ci boobu rek lay gën a jàng di xool nan lañ koy defee ndax boo demee ba fële ñu perturbé waat la nga demaat ci leneen loolu mën na la sonal ci euh, noo koy jàngaatee waaye boo tànnoon benn rek nga jàng ko xam ni ñu koy defee xam la lan moo ko wutale ak yeneen yi dina am solo euh, jërëjëf Oustaz Hady ñu sant la bu baax a baax jox la beneen dox daje ci euh, émission spéciale bii di waajal Tabaski ak ajug Màkk Euh, Walfadjri jagleel leen ko ci jamono yi ñu toll ñu sant euh, gërëm équipe technique bi Saliou Bey ak euh, ñi mu àndal Pape Modou ak Pierre ak Mballo ñu sant leen baax baax gërëm leen jox leen beneen ndox daje ci seen émission bii di yóbbalu aj màkk ak tabaski fii ci Walfadjri wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Marega voyage moo leen doon may